voilà mbokk yi ñu ngi nekk fii ci buntu kër euh, Balla Gaye le roi des arènes la lion euh, tey mu ñoom la ñu fekk si ci golf man nag Ablaye alors maa ngi kenn koo xamante ni mën nañu wax ne nijaayam la proche am la kii moom xam naa doo leen ko xàmmee nii mooy sol mbaxana boobu noon mbaxana bu marron bi mooy préparateur mystique bi xam naa man su may dem mbaxana bi la mooy jox papa maa ngi lay nuyu. maa ngi leen fay. maa ngi si jàmm bu baax. si jàmm bu baax. tey mën nañ xam tur bi naka man maa ngi tudd Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly. Mhm. yow Mali nga dëkk wala Casamance wala fan. waaw sosaana bi Mali la mais maa ngi dëkk Casamance. Mhm. Euh, yow nijaayu Balla Gaye nga wala xaritu papaam nga wala wala lat. suma doom la. Mhm. maa bokk ak papaam lépp. waaw ah, tey eh, bu ñu lay gis si làmb ji démb keroog barki démb yaa njëkk a dugg mhm. chaque làmb Balla Gaye yaay njëkk a dugg yaa koy waajal ci wàllu mystique ak lépp ci encadrement mhm. alors làmb ji lan nga ci jàngat tey la altine waaw li jàngat ci tey altine lamba moo mboole boole ak Bombardier xam nga làmb moomu lambatu la rek ku ci daji dégg nga ma suur boobu yow yaa neexale euh, mais lu may dégg Balla mooy mu continuer entraînement am comme mbaay mun demal ci kanam ndax yàlla mooy ñu ci ndam waaw. mais mais père tey dafa mel ni dama euh, dama lay tooñ tuuti. waaw da mel ni da nga da nga da nga jommi da ngaa jaaxle toog si naañ bi. déedéet jooju ma léegi bu ma yeewoo yàggul moo tax ma dama toog fii ba naaj bi fekke ma fi maa ngi toog di naan ataaya. mais di woo ma bi ni mu demee. di jaaxaluma. lan moo tax jaaxle woo. man maa maa ngi ci lamba ba léegi. du ma mun a gis lenn ci lamba lu may jaaxal man. mais xamoon ne lamb ji nii lay demee wala. ma la wax dama ne nit ñi dañuy lambatu. waaw mais bu ma koy waajal seentumawoon lii ba ci bés ba gisoo déedéet ba ñu dugg ci lamba bi seentuma lii ba arbitre bi sifflé bu arbitre bi muy suufle seentuma loolu waaw kon ça veut dire yàlla moo ñëw. waaw yàlla moo ñëw ndogaloo. mais est-ce est-ce que nag sa mbaxane boobu dëpp ñu ko quoi. Hmm. Bombardier est-ce que dëppul affaire yi. mënu ko. ah ko peer ngeen taxaw peer bëriwu leen peer bu waa doxul demul dikkul waa ji peer daal dara demul dara doxul. waaw mais ñoom yëpp la ñoom yëpp a taxaw. moo taxaw. waaw non ba ñam ñaari coup moom. waaw moom na ñaari coup. waaw noonu la demee. Mm-hmm. ku nekk ku nga li la war. Mm-hmm. waaye yàlla ndogal yàlla moo ñëw. mais combat Balla Gaye yi mu bëri yëpp. est-ce que bii paase. nekkul bu la gën a jaaxal yow comme ñenn ñu ci bari nee nañ leen jaaxal parce que Balla li mu bëree musuñu ko gis. waaw lu mu bëree suñu ko gis si làmba la rek. waaw bëre naa ki Gris Bordeaux fii décision arbitre moo leen atte waaw loolu suñu boree ci làmba lépp la da waaw du may dara kooku yàlla loolu la dogal mais moom xam nga ne décidé lii te ñu ni àndaa moom aussi décidé ñu ko yàlla mooy indi ndogalam teg ko sunu kaw nangu nañu ko waaw. ñu gis ne euh, seen mystique bi xar fa foofu yi dafa bëri trop yàgg ngeen ci biir géew bi nit ñi yor seen mystique yi bëri na kii jugee fee yéen daal da ngeen ko cotiser woon. coalition ngeen non peut-être ay xale yi la est-ce que man gis nga ma ci géew. waaw mais loolu la. mais est loolu jarto xoolaat. parce que da ngeen dem ba benn instant même Balla Gaye sax amatul woon sécurité bu mat parce que ñi ko wër dafa bëri. loolu xam nañu ko ñiy seetaane tele yëpp xam nañu ne cummikaay bi keroog doxul waaw yëpp xam nañu ne doxul te du te loolu génnuñu. waaw lu ñuy ab bare noonu génnuñu te arrangé wuñu aussi waaw loolu yëpp dinañ ko xool nit ñi bëri euh, ci mikaay yi bëri na Balla Gaye ba muy dugg ci làmb ba muy bëre yëpp mi ngi mi ngi sangu mi ngi takk waaw loolu la demee sax danañu seetaat loolu di ngeen ko seetaat danañ ko seetaat. bi yoon dafa mel ni kii euh, combat bi da ngeen ñëw def def loo xam ne affaire maanaam affaire comme débutant. comme mbër buy door a dugg ci làmb ci mikk gis nañu ko gis nañu ko bon xam nga ci biir làmba bi léegi nit ñi li ñuy engagé noonu mënatuloo contrôler nit ñi pour doo dugg fi doo jaar fi ku nekk mu ngi gàddu butéelam di taxaw noo koy def mais ñiy gàddu seen i butéel yooyu noonu xanaa ñooñ doo leen leen xam avant làmb ji wala da ngeen door leen a gis yéen a ah, ñoom xam nga man nekkuma fi man ma ngi Casamance waaw bu préparation lamb bi jotee ci ci nga may gis mais ñu mu nekkal fii ñoo ñoo mën a xamu ñooñu man mënuma lay xam waaw mooy dégg bi waaw loolu di ngeen ko jàng incha allah bu neexee yàlla am yéen ngi jëm ci combat yu doy waar yi ngeen def bërki démb moom boo leen ko defee ak boy Pikine mooy loolu Eumeu seen mooy loolu Gris Bordeaux mooy loolu waaw loolu yëpp jàngat la danañ ko def bu soobee yàlla waaw kontaan nañu ku la ka moom nan nan lay instant lan lay yëg. lan la wax lan ngeen waxal. sant yàlla ba léegi tooguñu ak mbor. Mm-hmm. Mm-hmm. bu ñëwee bu ñëwee mu nuyu fii te fii la ñuy toog ñuy waxtaan mm-hmm. ci mbiri àdduna rek mais làmb bi waxtaanee wuñ ci dara. fu mu nekk ne. waaw da ngay ñibbi wala da ngay waaj yeneen combat oh, non man damay ñibbi. affaire boo demaatee affaire yi day jaxasoo de te yow yaa war a régler affaire yi. waaw damay ñëw. su ma demee damay dem. li ma lay mujjee laaj. est-ce que Balla manqué wul ay mag ak i tamit ay conseiller technique ci combat bi. manqué wul mag. ak technique ci combat parce que combat bi am na benn instant bi mu jëlee quatre avertissement technique moo ko ci waroon génn. waaw mais ñii ko ñii ñii ko jege. ñoo ko war a xelal foofu parce que ñun dañu sori ñu ngi ci cumikaay bi am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko jege. boo ko seetee combat Balla yëpp fii manqué wul mag gi parce que combat bu jotee saabu mu jotee rek maa ki moo maa ak papam ñoo ciy ne ak bal ak Balla gay numéro un ñoo waaw ñoomu ñoon ñaareel fu ñu manqué du ba surtout du ba les du ba les bu fi nekkoon embouteillage bi am du am waaw bon ñunu man mii nekk ni papam la dëgg la mais man nekkuma fi ma maa ngi Casamance mënuma xam gaañi da ngay joxoñi keneen ni ñu ne la kii lu tax nga def li mm, mm. waaw loolu moo tax ma mandu ci mm. waaw mais yooyu après da ngeen koy wax allah bu neexee yàlla. jërëjëf papa kontaan naa trop. jërëjëf na de da ngaa jommi duggal rek. ci non non man man li wàññu ma de waaw waaw xam naa comprendre na mbaxana bi ñu démarrer mbaxana bi mbaxana bi sori na <laughs> jërëjëf mm. ma ñun Sénégal ci ah. bi moo njëkk ci Sénégal moo jiitu te mooy bu mag ah ñaanal ah, d'accord yal na yàlla may leen jàmm yal na yàlla yóbbu leen ci kanam ci mais suma xarit ma ko bàyyi ke lamba bi mm. ma ko yaa ngeen jëf <laughs> ba beneen yoon incha allahu rabbi